daa njëkk wax asakay jurub kër ka asakay war nag bu dee jamono yi daan teqale gor ak jaam gor rekk lay war waaye jaam dañ ko moom moom alalam moo tax booba asaka waru ko woon léegi na amatul teqale gor ak jaam daa wax ni nag bala ko asaka war mu di ab jullit waaye wax ji gën a wóor mooy ab yéefar asaka war na ko day def nag ne li fekk tuubu dugg ci lislaam bu joxe asaka joxe ga du wér nga xam ne kon dugg ci lislaam sart la buy tax sart la buy tax joxe asaka ga wér waaye teewul nag li ñu sant jullit ñi moom lañu sant yéefar yi te bu ëllëgee daañu leen fay mbugalug weddi ga ak mbugalug ñàkk a topp ga ndigal kon lu ñu wax ne asaka war na ca ci xeet yooyu bala caa asaka war kooku da caa am lu mat nisaab kenn ku nekk daañu wax nisaabam nu muy toll te it na ko moom dëgg-dëgg suñu ko ko dénkee rek mbaa daal moomu ko dëgg-dëgg moom asaka du ko ca war dañuy seet ka moom kookaa war a génne asaka ja bu dee nag xaalis mbaa juru kër wala wurus bala caa asaka war ba mu ko moomeeg léegi mat at ni ki lu mu doom rek tey jii ci wurus mbaa xaalis mbaa xeeti jur yi bala ci asaka war dañuy seet bis bi mu ko doon ne mbaa bis bi ñu ko ko mayee mbaa bis bi mu ko amee daal ci gàttal bu del see ci déwén sa mu yore ko te mu mat nisaab asaka door caa war waaye moom la seetuñu ci gone ak mag moo tax ñu bëgg boo waree ab jirim tam amee alal nga fexe ba dugalal ko alal ja foo xam ne dana fa di yokkoo ndax boo ko defut it at mu ne ñu war caa génne asaka te kon asaka yu bari yi day mujj daldi koy bëgg a jeexal nga seet koo xam ne wóolu nga ko doyloo nga ko nga jox ko nag alal yi jirim ba mu di ca jaay ko jënd te nga jubóog moom ci mu am nàngam ci bénéfice ba rees nag delluwaat ca alal yi gone ya loolaa ca gën ndegam léegi amut nguurul islaam guy yeble kenn muy jëli asaka moom ci boppam rek mooy farlu ci bu at mi matee mu daal di génne asaka ja joxe ko mu daal di wax nag kon juru kër nuñ cay génne asaka dafa jëkki gëléem gëléem li fekk amoo ci lu mat juróom jëkki genn yaar yett yent asaka waru la soo amee juróomi gëléem nag asaka war na la waaye duñ la laaj gëléem dañ lay laaj benn gàtt juróomi gëléem benn gàtt mooy asakaam gàtt bu am at moo xam xar la moo xam bëy la gàtt ba mën naa doon góor mën naa doon jigéen gëléem moom dañ koy def ay juróom juróom juróom yu ne benn gàtt ba ba ngay àgg ci wenkaat nga xam ne boo amee fukki gëléem ñaari gàtt fukki gëléem ak juróom ñetti gàtt ñaar fukki gëléem ñeenti gàtt soo amee wenkaat it du tee rek ñeenti gàtt yi ngay joxe asaka vingt-quatre yi nag bu tegalee benn muy vingt-cinq foofu la ñuy tàmbalee joxe gëléem ku am ci gëléem li mu ñaar fukk ak juróom asakaam gëléem lay doon te mooy li ñu tuddee bintu maxaad bintu maxaad mooy gëléem gu jigéen goo xam ne am na menn at ba dugg ca moom ñaareel ma la dale ci vingt-cinq ba ci trente-cinq bintu ma xadd boobu rek lay joxe at mu ne trente cinq nag bu tegalee benn muy trente six foofu lay tàmbali di joxe bintul laboon bintul laboon nag mooy gëléem bu jigéen goo xam ne am na ñaari at ba dugg ci moom ñetteel trente six ba bu muy ñëw ci quarante cinq bintul laboon boobu rek lay joxe asaka at mu ne quarante cinq nag bu tegalee benn muy quarante six foofu lay tàmbalee joxe xiqa xiqa mooy gëléem gu jigéen goo xam ne am na ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel quarante six yi nga waxoon ba ci soixante doo weesu xiqa bi nga daan joxe soixante bu tegalee benn nag muy juróom benn fukk ak benn foofu lay tàmbalee joxe jasan jasan mooy gëléem gu jigéen goo xam ne am na ñeenti at ba dugg ci moom juróomeel soixante et un yi nga mujjoon a wax ba ba ngay dem ci soixante quinze jasaxa boobu rek mooy asakaam waaye nag soixante quinze bu tegalee benn muy soixante seize foofu lay tàmbalee joxe ñaari bintu laboon fekk na xamoon nga nag benn bintu laboon mooy lan la dalee ci soixante seize ba ngay agsi ci quatre vingt dix ñaari bintu laboon yi nga waxoon amul soppi quatre vingt dix nag bu tegalee benn mu juróom-ñeen fukk ak benn ci lay tàmbalee joxe ñaari xiqa te fekk na waxoon nañ la benn xiqa ba nga xam ko ba noppi la dalee ci quatre vingt onze ba ba ngay àgg si ci cent vingt neuf muy téeméer ak fanweer bu manqué benn ñaari xiqa yi nga waxoon rek moom lañ cay joxe muy asaka su xasee mat nag cent trente jëm ca kaw ak lu mu bari bari dañuy génne asaka ya day daal di yomb ndax dañuy def jurga par ay quarante ak par ay cinquante bu fekkee dafa jaxasoo bu lépp mënee nekk ay quarante it baax na bu lépp mënee nekk ay cinquante it baax na su boobaa su boobaa nag quarante bu ne ñu joxe ca bintul labuun cinquante bu ne ñu joxe ca xiqa lu jur ga bari bari rek bu fekkee lépp mën naa nekk ay quarante quarante bu ne dañ koy joxeel benn bintul labuun muy asakaam bu lépp mënee nekk ay cinquante it cinquante bu ne dañ cey génne asaka xiqa su jaxasoo lee di ay quarante lee di ay cinquante quarante bu ne nañ ci joxe bintul laboon cinquante bu ne ñu joxe ca xiqa mel ne cent trente yi nga wax boo ko dee seet dafa am ñaari quarante ak benn cinquante kon cent trente yooyu dañ cay joxe ñaari bintul laboon ak benn xiqa lu jur ga bari bari nag noonu lañ koy toppe rek dafa tudd bintul maxaad ak bintul laboon ak xeqa ak jasan lu ci nekk nag ban ca tolloo waxoon nan la na muy toll ci ak dund maanaam waxoon nan ne bintu maxaad mi jiitu mooy comme at ba dugg ca moom ñaareel ma loolu la bëgg a leeral ne la nag da ngay tàmbalee ca bintul maxaad koo wax rek xamal ne moo ka topp ca moom am at la ñuy magantee soo weesoo bintul maxaad bintul laboon ma ci sësoon da ngay wax ne mooy ko am ñaari at ba dugg ci moom ñetteel xiqa ma ci sësoon nga ne mooy ko am ñetti at ba dugg ci moom ñeenteel jasaxa ma mujjoon nga ne mooy ko am ñeenti at ba dugg ci moom juróomeel muy nag soo ko bëggee boole ci ay araf tënk ko ngay bind mil hijj mim laam xaalon ku jiim mim gi da cee jublu maxaad ngay bintu maxaad laam gi mu jublu ci labuunatun maanaam bintu labuun xaalon ku mu jublu ci xeqa jiim gi mu jublu ci jaza nag moom bu fekkee amoo ci lu mat fanweer asakot la war fanweer mooy nisaab ji gën a néew ci nag ci asaka wara la boo amee fanweeri nag nag war a génne nag wu am ñaari at fa tudd rek wu góor waaye nee nañu joxe wu góor wa daa gën a woyof ci borom jur ga rek waaye moom bu joxee bu góor mu baax bu joxee bu jigéen mu baax moom daal bu amee fanweeri nag moom na joxe aw nag woo xam ne am na ñaari at yu mat sëkk moo xam ne góor la moo xam jigéen la loolaay asaka ja la dale trente ci nag ba ci trente neuf muy ñeent fukk yu manqué benn du soppi asakaam tabiixu boobu ñu waxoon muy naw am ñaari at rek mooy doon asakaam bu ca benn tegoo muy ñeen fukk nag na soppi lam daan joxe di joxe musin na musin na moom faawu jigéen lay doon du nangu mu joxe ca bu góor mooy nawu jigéen woo xam ne daal am na yetti at mooy doon asaka yi ñeen fukki nag su ko defee nag la dalee ci quarante ba ba muy dem ci juróom benn fukk yu manqué benn maanaam ba ba muy dem ci cinquante neuf du soppi loolu ñu waxoon bu sinna rek lay joxe at mu nekk cinquante neuf nag bu tegalee benn muy soixante foofu lay joxe ñaari tabion yi jàpp ne am na yaari fanweer muy soixante mu joxe ñaari tabion foofu nag lañuy tàmbalee di seet naye rek su fekkee lépp mën naa nekk ay fanweer mbaa lépp mën a nekk ay ñeen fukk kon fanweer bu ne asakaam mooy tabion su lépp mën a nekk ay ñeen fukk yi ñeen fukk yu ne mu sin na mooy doon asakaam suñ jaxasoo lee di fanweer lee di ñeen fukki itam fanweer ba ñu génne asakaam muy tabiixu maanaam naw am ñaari at ñeen fukk ya maanaam par ñeen fukk rek ñeen fukk bu ne asakaam doon musin na mooy nawu jigéen wu am yetti at moom daal mën nañoo jaxasoo ay trente ki quarante mën naa am itam lépp di trente mën naa am itam lépp di ay quarante waaye daal noonu la asaka jay génne nga xam ne su amoon soixante dix juróom-ñaar fukk ci ay nag dañuy jàpp ne benn fanweer la ak benn ñeen fukk fanweer ba mu joxeel ko naw am ñaari at muy góor muy jigéen baax na ñeen fukk ba mu joxeel ko nawu jigéen wu am ñetti at su demoon ba am quatre-vingts juróom-ñetti fukk dañuy jàpp ne kon am na ñaari quarante mu daal di war a joxe ñaari musin na maanaam yaari nayu jigéen yoo xam ne wu ci ne am na yetti at noonu ñu koy toppi nag muy wéy rek ak lu mu bari bari xar ak bëy ñoo yemoo ci loolu xar ak bëy ñoo yemoo ci li fekk amoo ci lu mat ñeen fukk rek asaka waru la boo amee ñeen fukk nag door a joxe benn gàtt bu amee ñeen fukki xar mbaa ñeen fukki bëy benn gàtt rek lay joxe muy asakaam te la tàmbalee ñeen fukk ba ci téeméer rek ñaar fukk du soppi benn gàtt boobu muy joxe téeméer rek ñaar fukk nag bu tegalee benn muy téeméer rek ñaar fukk ak benn foofu lay tàmbalee joxe ñaari gàtt te bàyyee joxe benn maanaam xar ak béy moom quarante benn gàtt lañ cay joxe ba ba ngay dem nag cent vingt doo weesu benn gàtt bi cent vingt nag bu tegalee benn muy cent vingt et un foofu ngay tàmbalee joxe ñaari gàtt ba bëgg ay àgg nag ci deux cent doo weesu ñaari gàtt ñi deux cent nag bu tegalee benn maanaam ñaar téeméer bu tegalee benn jëm ca kaw ba ba ngay àgg ci ñeenti téeméer yu manqué benn ñetti gàtt ngay joxe ñeenti téeméer yu manqué benn nag su xasee mat ñeenti téeméer day daal seet téeméer bu ne mu joxe ca benn gàtt asakaam daal di doon ñeenti gàtt ñu wéy nag tàmbalee noona nga xam ne par ay téeméer rek la ñuy wàññi nu ay téeméeram toll rek ay benn benn gàttam toll noona nga xam ne juróomi téeméer ci ay gàtt juróomi gàtt mooy asakaam juróom benn téeméer juróom benn gàtt mooy asakaam junni ci ay gàtt fukki gàtt mooy asakaam daa wax ne xeet woo xam ne dafa def ay qualité qualité daañu boole qualité ya ki boo ñëwee ci gëléem daa am gëléem yu mel ne yi nga xam fii ci réew mi am yeneen yoo xam ne nag miinoo leen ñoom dañuy am ñaari jigéen te gàtt waaye daañu leen boole mel ne boo amoon ci buxtu yetti gëléem am ci ay raab ñaar dañuy jàpp ne am nga juróom nga daal di war a joxe asaka benn gàtt daañu boole itam xar ak bëy mel ne boo amoon fanweeri bëy ak fukki xar dañuy jàpp ne am nga ñeen fukk nga daal di war a joxe benn nag dafa am nag yu mel ne yi nga xam fii am yeneen nag yu ñuy tudde jaamuus jaamuus yooyu xeet nag lañ daañu leen booleeg nayi nga miin ne bu amoon ci jaamuus ñaar fukk am ci nayi nga miin fii fukk muy fanweer asaka dal lay war